asalaamaaleykum patriote yi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp gis nga Macky Sall lii foog nit ñi wax ko ma ne li nit ñi di ragal a duut seen baaraam man foofu laay teg sama baaraam muy xasan am réew bu ñu demee ba ay saagakat ah ay ñu baax ñoo xamante ne tey dañu mën a jëriñ seen réew kenn mënu koo wax nga jàpp leen laq leen bi teg leen kaso di jël ay saagakat di vidéo ñoom di jël ay saagakat di leen dooleel si réew mi loolu dafa jot ku nekk duut si baaraam tey dañuy saaga président Ousmane Sonko dafa taxaw ne man kuy saaga ànduma ak yow mais tey jii la ñu gis Macky Sall képp kuy saaga tey bu la recevoir ay nitam recevoir nañ la léegi nag loolu moom loolu bokku ci violence ci lan la bokk loolu si lan la bokk est-ce loolu mooy defar réew jël ku mel ni Bassirou euh, Bassirou Diomaye nga xam ne xam-xam kese la xam-xamam ñëpp ko nangu jël ku mel ni Abdou Karim Xrum jël ku mel ni ay nit jël ay boromi xam-xam yoo xam ne te kenn booy. comme patriote yi yow balaa ngaa jël ay saagakat di leen jàpp di leen recevoir saa su nekk di promo saaga si réew mi boobu ani borom xam-xam yi ani Cheikh Omar Diagne ani Abdou Karim Koukhat ani ñi nga xam ne dañoo jàng ba ne ak am xam-xam nga jàppaleen daaj leen si kaso bi ngir sa bëgg-bëgg bopp bare jàppal saagakat yi di leen recevoir saa su si réew mi di dooleel saagakat yi si réew fi mu nekk nii doon borom xam-xam si réew mi doon saagakat sax moo ëpp valeur nga doon borom xam am si réew yàq nga suñu réew mi te lii nga def suñu réew mi duñ la ko baal àddina duñ la ko baal alax koo xam ne yow kuy saaga président Ousmane Sonko rek nga jël teg si sawet koo xam ne kuy wax lu ñaaw nga jël teg si sawet yow jël borom xam-xam yi war a jëriñ seen réew tëj leen si kaso bi jël saagakat yi di leen recevoir yow est ce que yow mérito woon na sax nga nekk palais yow bu démb doon tey sénégalais yi duñ la teg palais te tey ñu mel ni man bari na ñoo xam ne tey riccu nañu trop loo xamante ne tey xoole nañu ba nga dugg si bi foto bii laa leen di leeralal Awouskity ak président de la république Macky Sall kenn du ñëw di di jàkkaarloog président di ko tegal ay saaga yu ñaaw yu ko Awouskity di wax.